ki fait le buzz actuellement xale buzz euh, xale xale bëri wax xale dof xale xale xale <laughs> bëy <laughs> non Kouthia Kouthia gis nga boo may tuulee bu ñu demee nag ba neex-neex bi ëpp dañu koy posone mu dee bu may bi jàmm quoi parce que finalement ñu ngi bëgg dee quoi semaine bu jot mu toj fi ah toj dëkk bi ah, bu ñu demee nag ba maara il faut ñu del posonte ko ci kaas tegal ko ko ci plateau comme ça. mu <laughs> naan ko dee non non boobu du baax boobu du baax boobu du baax. Euh, euh, <laughs> Pape Cheikh tout à l'heure maa ngi leen doon wax benn application boo xam ne mooy def le buzz un million de personnes téléchargé nañ ko. Mhm. et c'est une application qui sert vraiment à rien parce que benn moo nga ci mën a envoyé muy yo. Mm. kese YO. Oh. Euh, da nga koy téléchargé si sa téléphone heureusement que c'est gratuit parce que ça sert vraiment à rien lu ci jaaxal nit yi mooy lan moo tax application bi di def buzz actuellement alors que ki ko doon créer euh, dafa bëggoon juste benn application boo xam ne daf ci euh, mun contacter secrétaire am en benn clic. Mhm. mu defar ko finalement waa bureau bi di ko jël am benn. koo xam ne dafa spécialisé aussi web Robert Scoble États-Unis la dëkk dem gis foofu application bi jël ko wax ci euh, au niveau des États-Unis ne mooy application bi gën a stupide mais bi nga xam ne da nga ciy addict en un en un en bu bu gàtt benn laps de temps bu gàtt mm-hmm. euh, finalement ñëpp di ko téléchargé bu tenez-vous bien benn investisseur daf ci bëgg a investir 1,2 million de dollars c'est ça l'être humain mm-hmm. tu sais nous Cassé, non mais on est bizarre en fait ah, envie, ah, envie de, c'est, de, c'est de très bête et le pire c'est que application bi en huit heures de temps kese lañ ko defar premier avril lañ ko génnee mm. ñoo ngi mois de juin actuellement un million de nit ñoo koy ñoo koy ñoo ko am li ma ci metti téléchargé naa ko te xoola ñaari contact laa fi am biir Sénégal da ngay bës yóbbi dem jeex Ah, amul ah, leneen ah, de toute façon man dama ko ñun duñu soo ko téléchargé woon par exemple je peux genre dugg sa sa compte dugg biir yoo xool sa contact def cliquer. ma yoo. non bu ma cliquer si sa contact rek yoo day dem. ma ne la yaa. <laughs> yaa génnagul oh, nañ créé yaa comme ni am nañ ci 1,2 million de dollars. et puis yoo tu te demandes ce que ça veut dire il paraît que matin bi ça veut ça peut dire Euh, bu fekkee sa chef d'entreprise moo la ko envoyé ça veut dire que loolu soxla mun nga ñëw su fekkee euh, ngoon gi la sa mun na euh, dire est-ce que yaa ngi nelaw wala bonne nuit bu fekkee ci match de foot yi la yow ça veut dire but. Eh. ok. c'est stupide ñàkk xorom et ça fait le buzz. ça m'énerve voilà et ça fonctionne. non mais sérieusement parfois nit yi dañuy bizarre quand même ci monde bi. dafa mel ni lu bizarre waa jëlal ma ko merci beaucoup. beneen affaire buy def le buzz ci web bi waa Algérie parce ah non avant on va parler de Facebook parce que Facebook da ngay ñëw gis nit jël sa tour jël sa sant def ko Facebook comme euh, am na benn Facebook bu ñuy wane ba su Pape Cheikh par exemple démb bu may recherché Pape Cheikh Diallo y en a benn tonne de Pape Cheikh Diallo comme ça. Mhm. Euh, publié wu ma seen photo parce que voilà doo leen bëgg a defal publicité mais tout le temps dañuy jël sa identité. ah ça <laughs> a xàmmee. Ah, euh, bu dee Pape Cheikh di. recherché ça c'est ma. sëñ Fallou Ngop mooy sa wifi. Oh, waaw Fallou bu sa jaxaree ba càmm ñal ma dem Kunta yaayu mel. mooy photo profil damay dégg ne de. nga dégg ne noonu. moom xam na man xam naa. dégg c'est un diagonal. donc dégg ngeen pour voir donc Facebook tout le temps da gis ñu jël identité nit par exemple nit mun na jël def sa tour def sa sant ñëw. mais pourquoi ñoom ñuy def loolu am jot mën a fenn. bah pour se faire <laughs> passer pour quelqu'un koo xamante ne nekk ñu ko ex amoon na si problème. moi je discutais ak un Pape Cheikh Diallo boo xamante ni écoute euh, en mensonge qu'il est euh, da ngay ak moom mu ni comme si. si si euh, la Pape Cheikh. def naa capture d'écran te te ñoom en fait dañuy le pire c'est que der loolu moo si gën a métti. dañuy yàq sa der et puis loo publier ñu publier. boo changé couverture ñu changé couverture man ki ki defar par exemple c'est abusé non non parfois man ki defar sama Khady Ndiaye bijou contre plan beneen bi tamit. Euh, beneen am na beneen booy booy seet Khady Ndiaye bijou contre plan beneen bi. hier par exemple moi j'ai j'ai vu une de tes photos. tu étais en blanc ak benn càq. Mm. bon kii sa photo rek la utiliser avec avec un autre nom ah quand tu regardes euh, photo bi tu as l'impression que c'est bijou Ndiaye alors ah, que. Euh, kooku la. Euh, yeewu leen par exemple. yeewu leen yenn à 10 000 d'ailleurs am nañ photopage yu yeewu leen oh officielle bi Pape Samba bu fekkee mën nga ko andi photopage officielle yeewu leen bii la pour l'instant on en est à presque 27 000 followers et puis euh, di gis ay 50 000 personnes ñooy nekk di suivre suñu actualité yi di commenter donc beneen page yeewu leen boo gis parce que am na exactement même page yeewu leen même écriture même écriture ba pare suñu photo yi ñu publier yeewu leen lay jël bu ñu changer profil mu changer suivi ah donc suñu vingt cinq mille plus dix mille am moom. muy suñu trente sept mille. muy trente cinq mille. donc am na ñoo xamante ne dañuy jël amoon naa benn copine par exemple dafa am ku jël ay photos yi mu publier Facebook am yëpp changé def beneen tour ne que moom la. di expliquer. fan la demoon c'est comme la fille a changé de nom avec ta photo. ak ma photo et y en a boo xamante ne sama tour sama sant ak sama photo. et puis mhm. boo changé mu changé donc finalement. Euh, mun na envoyé nit yi yenn message yoo xam ne yow doo ko bëgg léegi ah moo tax moo tax muy moo tax dafay dugg ci cybercriminalité. exactement dafay dugg ci cybercriminalité ba pare ba pare bu fekkee dañ la ko def par exemple yow mun nga wax sa ay xarit yi nga xam ne ñoo le follow euh, Facebook depuis longtemps ñu signaler kii copier sa identité. buñ bu amee signalisation yu bëri dañ waa Facebook dañ koy bloqué. pour wax hmm. leen ni que voilà du sa profil dafa am keneen ku jël sa identité pour se faire passer pour toi donc ils peuvent le bloquer beneen chose bu énervante si si si Facebook les hmm. appels. téléphonique. ah am na. oui yàlla na ma um da ngay jéggi saa rek sa téléphone. bu nit bëggee nga woo ko téléphone. <laughs> dina la jox numéro donc ça sert rien que ngeen di woo nit yi téléphone par Facebook parce que su fekkee 5000 contacts nga am c'est comme s'il y avait personnes yu am sa numéro téléphone et tout le temps les gens insistent ba pare boo leen wuyul ne maa ngi lay woo Facebook wuy woo je veux dire que nit ki bu bëggee nga am numéro bu bëggee nga woo ko dina la jox donc ça ça sert à rien que ngeen di woote par Facebook je pense que mun avait même prévu cette semaine invité ay parle parce qu'il y a tellement de choses qui se ah passent dans le web donc pour appeler Zeyna elle de quoi je parle donc le message est passé Zeyna. non non non il faut je rappelle il faut qu'on rappelle ça mm. man par exemple sama page Facebook mooy bi ñu wane il se pourrait que euh, sàcckat bi wala bi. ñoom daal ko ko balaa 11h ko Serigne Fallou ak beneen photo mais compte bu plein la déjà. donc voilà kenn mënul rajouter Pape Cheikh Pape Cheikh mënul rajouter kenn mënul mënul mënul mënul mënul ñuy envoyer di textos des messages et tout ça. Voilà. c'est pas bien donc. bii nii moom la am. comme compte Facebook mooy bi ngeen di gis nii te il ne tamit dañuy jël seen identité. on n'est pas on n'est pas les seuls ah. y a tellement de monde qui vit donc. Euh, des photos euh, ak Ngone benn bu nekk États-Unis ak Ngone Ndiaye Géwél bu bu dul Ngone Ndiaye Géwél heureusement ba ma xam Ngone Ndiaye Géwél mais su ma xamuloon Ngone Ndiaye Géwél damay continuer di wax ak kooku yegg ak foo xamante ni dama fa yegg souvent ci discussion ak Ngone Ndiaye Ndiaye mm. heureusement après que à comprendre ni du Ngoné Ndiaye géwél man j'ai un ami boo xam ne kenn daf doon faire passer pour lui on lui posait des questions mais mm-hmm. pour xool degré de mm-hmm. mythomanie fan la toll mais da lay jox réponse yoo xamante ne mais ñun on était par terre et finalement mm-hmm. j'en ai eu marre ma ni ko sérieusement ki ngay wax moom nga man je le connais très bien donc arrête de te faire passer pour quelqu'un d'autre parce que les gens peuvent vous aimer tel que vous êtes ci seen identité bopp donc am na ci koo xamante ne Suisse la dëkk damay wax ak moom Facebook ma ne ko s'il te plaît de grâce xam nga ma xam naa la. Mhm. mais wóo dara wóorutul. te waxtaan yi may waxee pour Facebook je préfère nga woo ma sama téléphone. ma mu bind ma que ça nga ma yónnee message man menacé ma man. des histoires des histoires pareil y en a y en a exactement ce qui le buzz ci internet Algérie bi mu gagné Corée du Corée 4 euh, à 2 22 euh, juin dernier. que ce soit Paris wala Lyon algériens yi dañu génn ci mbedd bi génne seen ay drapeaux di jubilé comme pas possible et tout le monde se demandait Algérie bu ñu gagné coupe du monde bi naka la ñu nar a def mais là seen joie lañ doon wane peut-être que nit ñi se disent ñi ngi soog a dem coupe du monde. Sénégal biñ doon gagné match yi jubilé jubilé yu mel ni lañ fi doon def ci mbedd Sénégal yi donc français yi li ñu comprendrewul mooy euh, algériens yi pourquoi génn jubilé ci mbedd bi et tout ça et puis am na si ñoo xam ne daf leen métti carrément comme le député UMP Thierry Mariani moom dafa tweeté euh, question simple si les supporters français défilaient après un match de foot avec leur drapeau dans les rues d'Alger que se passerait-il Voilà, qui lui dit rien de plus que la fête pour l'avoir vécu en 2006 en Tunisie. Merci, au revoir. Donc je pense que tëj na géej bi ñoom une bonne fois pour toutes mais quand même algériens yi bëgg naa xam naka lañ nar a jubilé de finale. xàppi rek compliqué. <laughs> ça va euh, euh, beneen match photo par rapport ak euh, coupe du monde parce que photo bi xaw ma fan lañ ko jëlee. mondial mais je propose aux habitants de cette localité de ne pas tomber malade en tout cas pendant la coupe du monde parce que lii salle <laughs> yow kii taluñ ko ñu tëj ci table bi de euh, sérieusement je veux dire j'espère que c'est c'est pas une vraie photo que nit yi dañ ko monter pour internet mais bu deekee dëgg la te ngeen xàmmee hôpital bi dëkk boobu bu leen feebar ba coupe du monde bi jeex dama leen ko ñaan ngir yàlla pour seen santé la ak pour seen bien-être. Euh, am nañ beneen photo boo xam ne dañuy comparer massage africain ak massage européen. Ah, ku dañu ñu dëpp bës ko. non xale yi di yéeg sa kaw di tëb. xam nga dañ koy def fii waaw c'est que les internautes vraiment mauvais xaw ma yenn idées yi naka ngeen koy. xalaatee par rapport yi kay lañ war a bàyyi. nii par rapport yi. comparé. bilaay xam nga ni yu nooy am na fii tamit dañu waxante dëgg. <laughs> mu rangalee doomam nii yéeg ci kawam. ah pourtant presque ñun ñëpp mos nañ ko def na en tout cas man sama rax yi dañ ma koy def voilà donc mais c'est c'est c'est les idées des internautes donc après loolu ñu dem ci photo mariage yu Fatim Gueye Bijou Gueye ko posté dem internet yow comme ñoom Bijou say xarit la ñaa ngi ne yow Pape Cheikh yaa sa lubla bi yow Bijou ngii di Bijou Bijou Gueye ngi nee ci biir kii di gisoo Fatim ak muur lay Fatim <laughs> ay yow biso ngi di yéey yéey bëri na donc félicitations Fatim ndeysaan biso laa mënul ma ah. xamal fille d'honneur yi pourquoi blanc ak chapeau bi. ñu ah, mel ne ay njulli bi waaw maa ngi ne ci côté bi. ay njulli de ni ñu ak su maa mun naa ma sa njulli yi nag. <laughs> mariage la woon donc Bijou merci d'avoir partagé si moment yi nga xam ne c'est des moments importants de la vie de Fatim. <laughs> merci beaucoup mm-hmm. euh, bu ñu jógee ci mariage dem ci mère bi dama leen bëggoon laaj yéen lan la leen jox instant bi avant may wax lan moo xew si photo bi. kii dafa xeex ba pare toog. man. <laughs> je vois dañ koo dig dóor. wala bëñam day metti. tenez-vous bien maire bi dafa dee nii. dee. Mhm. ay funérailles yam lay lay assister ak verre scotch ci loxo bi. ak cigarette. Euh, maquillé wu sañse euh, toog nit ñi di <laughs> la mu teg ci taal bi de. <laughs> donc loolu la bëggoon quoi. en fait moom doomam yi dañu nekk dañ koy defar funérailles yoo xamante ne ni euh, bu fi nekkoon dina ko neex donc dañ ko teg ci benn cercueil nit ñi di ñëw dañ koy teg comme si day recevoir ay nit këram parce que c'était bon vivant la woon elle aimait bien recevoir mm-hmm. les gens chez di ñuy naan tux fecc foore donc finalement. funérailles bi lañ ko defee donc internet nee nañ ko c'est les funérailles les plus insolites depuis que ñuy soog a gis funérailles maire bi ku ko gën a bëgg Mumbai passé wul mais ñi nii ñuy gis en vidéo kenn rawul leen ci côté Mumbai ñu xool ku ñu waay donc ay jigéenu biir ay jigéenu biir yuy fecc la ah. concours de danse. ok Mado kii di elles sont pas enceintes. elles sont vraiment enceintes eh elles sont en plus état oh. eh, avancé. est-ce que c'est pas pour les aider à accoucher peut-être. waaw peut-être ah, fii daal y' a di fête di Mumbai. xam naa dañoo dafa neex rek dañoo yeewu ba yeete nii di. Ah, am envie blow rek. waaw jëlema bëri biir suuf am envie blow rek. non mais c'est que en fait lii man damay ragal mu gaañ demee bi sax. waaw am envie blow rek ah. accoucher directement. Ah, lii wul technique la. am envie blow rek voilà. ay seex lay am moom. <laughs> yow nga ni dëkk la. ay seex la lay am. neex na exprimer na fi ay seex assure ba xam ay seex la ñuy am pour terminer nouvelle technique de dugg oto Pape da doon wax man la mais moom lañ filmé nañ ko. xool non mais franchement yaa ma ko jàngal c'était toi. yaa ko jàngal dugg bu gaaw. ah waay néew sàmm yaa ma ko jàngal lépp bu gaaw am na <laughs> moom moo ko ko jàngal moom moo ko jàngal. <laughs> <laughs> ça veut dire que yéen ñiy defar oto mun ngeen éliminer porte parce que eh. am na tendance dugg oto bu bees bu xew donc def leen ci juste. du ñëpp ko mën <laughs> <laughs> du ñëpp ko mën. jërëjëf non waa voilà bisu moo ko jàngal moom moo ko jàngal. mu nekkoon buzz euh, du web ak euh, tout ce qui se passe sur internet c'est un monde de fou et c'est le monde de bisous ah. te toutes les bisous sont pareilles.